suñu coalition bi ñi ko bokk ñëpp yéen ñëpp mun ngeen seede ni amul kenn kuñ ci ràññee koo xam ne mun nañ ne bokk na ci système bi mës na fi bokk ci système bi ba ñu jox ko ay responsabilités yu mag a mag a mag ba mu war a mun a sax naan mi ngay jël ci xaalisu réew mi pour dajale ay milliards wala waajal ay élections ñu gis ni élections yi moom Macky Sall ak gouvernement am dañoo def lépp pour saboter ko mu jaare ci ni ñu ni ñu demee defar seen i carte d'identité boolewuñ ci kenn ci ci askan wi du société civile du parti politique d'opposition ba pare ñëw ba élection jot ñu téye carte d'identité bañ ne duñ ko jox lu mat 2 million de sénégalais jotuñu seen carte ñu dem daa di modifier ñoom dong seen code électoral pour dugal ci loo xam ne dëppoowul ak li yoon wax dëppoowul ak li CEDEAO santaane ñu gis ne élection yi. conditions yi mën na ne mën nañ ne matul woon ci kenn ci wax opposition pour ñu dem ci am na ku ñu laaj léegi waxuma ko ci version française ne li tax ñun malgré tout ñu dem waaye dañuy xam ni politique bu bu ñu nee élection jib si na ñi nekk ci langue politique bi ñaari position rek lañu mën a am benn mooy nañ ci dem même su dee d'accorduñ ci niñ ko organisé ñaar mooy nañu boycotté waaye ñun ñëpp xam nañ ni boycott musul doon solution ci mbirum élection boycott ñaare ñu koy def ñëpp dañuy ils se retrouvent perdant parce que boycott terewul ñoom ñu def seen élection moom sur 37 listes ñëpp ne nañu financé na lu mat 30 listes donc su doon ñun dañoo boycotté du tee mu def ay élection am ak 30 listes la preuve bi ñu nee il faut consensus pour ñu modifier cote électoral bi moom dafa ñëw ne 30 d' accord nañu 36 d' accord nañu y' a que 11 ñoo bañ donc consensus am na parce que consensus du unanimité consensus ça ne veut pas dire que ñëpp d'accord nañu donc nun suñu boycotté woon it tey duñu fi toog di def conférence de presse dinañu def seen élection def seen mascarade am seen assemblée nationale donc ñun li ñuy sante yàlla mooy élection législative yi bi mu jiitoo élection présidentielle parce que dinañu permettre ñu xam ñoom lan mooy seen stratagème lan mooy seeni i tey gis nañ seen feem mooy li ñu doon def pour bloquer sénégale yu bëri bañ a wote parce que ñoom xam nañ ni mënatuñu am majorité Sénégal ndax incompétence bi ñu wone ak ñàkk weeg bi ñu ñàkk weeg sénégalais yi jaay doole gi ñu nekkee ci réew mi yàq xaalis bi ñu nekkee fii mbuxum bi ñoom xam nañ ni mënatuñu am majorité ci Sénégal donc chance bi ñu am mooy bi bi bi bi législative yi jiitoo ba ñu gis ci lan la ñu yaakaar ñoom li ñu yaakaar mooy woon bloqué yenn suffrage yi loolu mënatul am ndax fii ak 2019 Sénégalais yëpp war nañoo mën a jot seen carte amatul lay ñu am pour bañ a joxe carte d'identité ñaareel bi mooy achat de conscience mooy guerre bi dee naa sax léegi yokk nañ ko mu ngi ci 10 000 francs waaye citoyen bi nangu ñu ger ko war na xam ni benn mi ngi lor boppam mi ngi lor njabootam parce que 10 000 francs bi tax mu teg fi ki mu farul teg nee naa doomam bu demoon ba am vingt cinquant 30 ans war a liggéey amul liggéey na xam ni 10 000 francs boobu moo ko ko teg incompétence bi mu fal moo ko ko teg waaye ñu ngi sant yàlla bi loolu wàññee wàññeeku na bu baax a baax a baax ndax tey leer na ma ni cinquante virgule six pour cent des sénégalais yi voté pour ñoom kenn geru leen te ñun gëm nañ ni bu élection yi jaaroon yoon Macky Sall mënul weesu trente cinq pour cent ci réew mi ci koo xam ne soixante cinq pour cent lañ la lañ la faloon yaa cinq moo tax ma ne Macky Sall wóor na ma bu tëddee guddi moom dong ak njëgënaayam du nelaw. li ñuy wax ni yëpp pour rafetal la rek naan kontaan na ak nangam waaye su tëddee du nelaw parce que tey su doon élection présidentielle ñu ngi ci deuxième tour te moom xam na ni kenn mësul nekk président sortant dem deuxième tour gagné mënut ne ñaari ñaari santiment la war a am moom ñaari yëg-yëg benn bi mooy gàcce ci koo xam ne da nga ñëwoon Sénégal yi fal la nga ne gouvernance sobre et vertueuse mooy yorin gu sell te jub tey nga mun a jël xaalisu réew mi di dem di jënd ay sénégalais pour ñu woteel la gis nañ ko bi ñu ne élection bi des na lu dul ay fan dajale na fi ay ñi ñi yor oto euh, parc oto yi joxe fa lu mat 30 million ne seddoo leen ñu dee ki waay mu dem dajale ay ñi ñu deger piroon fii Tobago jox leen ay titres fonciers plus de trois 300 titres fonciers yoo xam ne fañ ko def ci biir aéroport bi lotissement boobu jaaduwul jaarul yoon te ñu fàttaliku ni. ma ci Sall moo fi dem campagne aéroport archive yaa ngi fii ne buñ ko falee lotissement yi fa am yëpp da koy annule non seulement annulé wu ko waaye mi ngi daggaat biir aéroport bi dem ba jege pist bi avis technique yëpp nee nañ ko fi yoruñ fi def euh, euh, euh, lotissement loolu yëpp njàqare moo ko ko andil. tiitoon dafa tiitoon ba léegi sax tiit bi tey la gën a yokk kon yi ñuy def di poudre sénégalais naan kontaan naa nañu fàttaliku ni dafa ne woon objectif bu mu assigné Boun Dionne 62 pour cent la. nga nga mujjee 40 virgule 4 pour cent donc gàccee ko war a jàpp ak tiitaange te man gëm naa ni loolu moo nekk ci moom fi mu toll nii la ñuy bëgg a gëmloo sénégalais yi nii il faut ñu sauver les meubles comme on dit moo tax dégguloo leen fenn ñu war di corne wala di yóoxu nee nañu muut jàpp seen njàmbur kon ñun bu ñu doonee ñuy doog a ñëw bokk ak ñoo xam ne su dee yàgg dañu leen ràññee ci classe politique yi musu ñoo jaay seen ngor mosuñoo bëgg a dugg ci dara ndax suñ ko defoon it li nit ñi def mënoon ko def tey ñu ngi ci yoon ñu ñor réew mi toog jàpp seen ñàmbur ñu dem ci élection boo xam ne ñeent fukk ak juróom ñaari liste ñoo demoon ñu bokk ci ñi ci gënoon a tuuti moins ndax bi ñu xaymaa li ñu demee élection yëpp mën naa ne matul une de temps wu campagne yu Benno Bokk Yaakaar li ñu battre campagne te dem nañu fu ne ci senegal Ndar ba Casamance Ndakaaru ba Tamba fu ne jaar nañ kon suñu génnee ci loolu ñu ne leen ñu ne ñu ci juróom-ñaari coalition yu jiitu ngeen bokk dañuy dellu sant suñu borom gërëm sénégalais yi ñu woteel ak ñi ñu bëggoon woteel te jotuñoo wote ak def mention spéciale nag ñi nga xam ne dañ ñoo jël féetale ñu ci kaw muy Canada bi nga xam ne ñoo ci jiitu ñëpp jël 30 pour cent ci suffrage bi muy ay gox yu bëri ci Casamance gële. commencé ko ci suñu village ñun muy Bessir mënuma koo ñàkk tudd fii nag ñu gagné ay village gañe ay commune gañe fu mel ni Canada diaspora bi foo fi dem génnuñu ci ñeent yi jiitu Sénégal foo dem amul foo xam ne di fa dem ñu ne suñu coalition zéro la fa am amut fu ñu dem rek am nañ fa score boo xam ne mën nañ ne génnuñu ci six premiers sept premiers yi ci loo xam ne bi mu dooree yàggut dañuy dellu sant yàlla xam ni nag liggéey baa ngi door ndax score bi ñu am munoon nañu am double bi wala triple bi su doon suñuy moyen mayoon nañu ñu teew ci bureau de vote yi waaye neew ñoon ci bureau de vote yi suñuy bulletin fu bëri dañ koo dëpp wala sax new fa nit ñi dañu woo da ngay gis ku dugg ne daf ñoo bëgg a woteel woote ne man de gisuma seen bulletin fii mais comme dañu doon laaj lu mat 2500 wala mille pour siéger te yoruñu ko ndax boo ko xayma woon ci bureau de vote yooyu yëpp ëppoon na 40 millions ñu ne nañu dénk suñu bopp yàlla rek dem waaye balaa élection di dikkaat bu soobee yàlla li ñuy wax appareil électoral dinañ ko tabax ni ñëpp taxaw incha bi donc ñun ñu ngi sant yàlla ci lii mu mu jox ci ci élection yi te xeebuñu ko